salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi mbokku dunia ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am contentement saa su nekk jàkkaaloo ak yéen fii ci seen télévision Safina TV kon fu waay mën a nekk ñu ngi la fay fekk jox la suñu loxoy xol. di la ñaanal jàmm ndax lu dul jàmm jàmm ko gën te jàmm si la lépp xaj kon yan nañ ko yàlla boole defal def ko si mim réew di Sénégal mbokku téléspectateurs yi kat safina daf leen andi loon lu bees émission bu bees concept bu bees bu ñuy woowee lu tax lu tax kat sama gaay yéen ñi yéen a ko tax a jóg ndax dina ànd ak yéen si seen actualité ànd ak yéen itam si bépp thème bu mu mënti doon ñu gëstu ana lan moo tax xool lan moo si jafe buñ wëri solution yi kon ku sponsoriser seen émission nga contacter service commercial 77 207 64 38. kon sama lu tax kat lay télévision Safina TV ngeen di sister seen xarit soxna